daanaka ci mode fast track lañ daal di tàmbale seen bile point de presse ñoom ñi leen di député yeewi askan wi génnoon doon janook askan wi ngir wane seen nakar ci li nga xamante ne nii loolu la njiit réew mi daal di jël tuxal lii di élection yi. balaa ñoo door ak di wax dara d'accord ci dàq gi d'accord ci aj bi di report ni annulation wu élection présidentielle bii nga xam ne le 25 février 2024 bii la war a am. Yewwi Askan Wi nag def nañu kon ab kalaame ca conseil constitutionnel di wàllum recours ngir commission bii nga xam ni kon taxawal nañ ko waaye bu loolu weesoo tamit ñi ngi xaar mu daal di dëggal promulguer loi ba bu ko defee loolu it danañu ko songi wax suñu sukkandikoo ci ay dara moom li mu xamle mooy député Yewwi Askan Wi daanaka déposé nañ ay yoon i yoon création commission d'enquête parlementaire wante mu mel ni rek ba léegi kenn faalewu leen. ay commission d'enquête parlementaire yu bari. yoo xamante ne nii déposé nañ ko waaye defuñ ko mode fast track te loolu day ay bakkanu doomu aadama ci boppam moom moo nekk ca ñoom. mu mel ni rek fu mbir yi toll wax xajatu fi faw rek ñu wàcc daal ni janook moom looloo waral ba ñuy woo askan wi ngir ñu ñëw fekk si leen ci assemblée nationale. ñu ngi woo képp kuy sénégalais fépp foo mën a ne nga ñëw ca pencu ndawi réew ma lii amoon na fi 2011 ak le quart bloquant soo amee 25 pour cent gañe nga ay élection présidentielle nguur ga ñoo nekkoon majorité am majorité ci assemblée nationale mais lan moo tax ba Abdoulaye Wade ak waa këram dellu woon ginnaaw parce que peuple bii le peuple ñoom ñoo ñëw taxaw xeex mu jaral leen lu ne ba loolu noonu mujjul woon a am konoon ba tey heure bii ñoom gañewaat nañ ba tax na nag keroog peuple bi moom moo am ndam peuple boobu nag la ñuy woo. ci altine ji la ñu daal di convoqué député assemblée nationale yëpp ngir ñu ñëw càmbar bi les de loi ngir ñu xool ana. lan lañ ci jël ci ndogal